بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مبقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفع أم بين مبقي بوخمني دفع ما يوني فقال لغني بما دوغي تايت أجمج يمو 15 أبريل 2022 تاي جيني لغني بني دوغي مبقي دفع ما يوني بين فقال بوخمني فقال بمنت نيك ma partagante ko ak yéen mbokk bi dafa ma posé ab question laaj bii la ma laaj déglu leen ma nettali leen laaj mbokk mi nekkul Sénégal ci meneen réew la nekk yàgg naay jokkoo ak moom yàgg naay waxtaan ak moom waaye tey laaj bii la ma laaj déglu leen laaj bi mbokk yi mbokk mi nee na ma man day oustaz damaa jaaxle ndax dafa am loo xam ne dafa maa gaar ci sama dund ma nga ne lu mu doon mbokk mi ni ma dafa am ku ma nekkaloon fii ci réew mii ma nekk mu dëkk Sénégal ma dëkk Sénégal ma xamoon ko laata ñu ñëw fii mu xamoon ma laata ñu ñëw fii waaye bi ñu ñëwee fii nag ñu gën a jigee ndax ñoo bokkoon fu nekk maag moom mu ne ma mbokk mi da daan dem di seeti jibar da daan takk ay gàllaaj laaye biir naa ko ci wax na maag moom guddi wax na maag moom bëccëg waaye daan na dem ba mere ma ci sax du ma tudd lànk ni lu bàyyi ak njibar du bàyyi dem di seeti jibar yi mbokk mi nee na ma démb démb la mbokk mii mu doon waxal jékki-jékki taal otoom ci guddi gi dem di seeti ab jibar bi muy seeti jibar bi ci yoon bi mu def ci ab accident ba kenam des ci la hawla wala quwwata illa billah mbokk mi nag ni ma nag ndax islaam may na ma ma ñaanal ko lii la ma doon laaj ndax islaam may na ma ma ñaanal sama mbokk mii nga xam ne yàgg naa ko wax mbokk mi du ñak vidéo bi sax dina yegg ci mom inshallah taala lima ko tontu yeen ñepp dina leen ko wax moy dama ko ni ndax da nga gis muy julli mu ni ma waaw ma ko ndax japp nga ni mom sédé won na ni yalla moy boroma mu ni ma waaw ma ko ndax japp nga ni sédé won na ni yonent bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoni mu ni ma waaw ma ko ni kon ñaanal ko ñun ñepp na leen ande ñaanal ko mbokk yeen nako yalla yeen yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm yal na ab julit la won bo xamni man naa am dafa am benn côté boo xam ne côté booba feebul na ca comme ni ngay gisee kenn ku manti doon ci ñun am ay côté yoo xam ne mën naa am dina fa faible kon danañ ko ñaanal kon yal ko yàlla yërëm waaye nag ak génn àdduna moom mbokk moomu am njàngat laa ci war a def man mii di wax am njàngat nga ci war a def yow mi yor sa téléphone bay seetaan vidéo bi ban njàngat lañ ciy def xool leen mbokk mii nga xam ne da doon dem di seeti jibar ku nekk xam na ni am na lu mu doon wëri pour aajoom faju te ca ci bar boobee leneen lu bokkut ak bakkanam des ci yoon wi mbokk mi naa laaj sama bopp yow it laa jël sa bopp bu fekkoon ni yow ci sa jëm bopp yaay jóg dem di seeti jibar ca yoon wa yàlla subhaanahu wa taala jël fa sa ruu ndax kenn ci ñun ñaan na yàlla lii bu fekkee ñaanoo ko yàlla rek lu weesu tey bu fekkee da nga daan dem ci ay jibar moytu mbokk yi man mii ak yéen ñi ku manti doon ci ñun am na situation boo xam ne ci la yàlla tuddali ci ngay ban situation la kenn xamul am na ñoo xam ne dañuy jàng alquranul karim seen bakkan jaara ci dem na ñoo xam ne dañuy julli seen bakkan jaara ci dem am na ñoo xam ne dañuy nekk ci yoon yéeg ci oto li am ci accidenté ay bakkan di si doon bari na ñooñu nekkoon ci oto yi di accidenté ku nekk ci ñoom am na lu nekk ca xol ba ba muy dugg ci oto ba am fu mu jëm te yonent asalaam nee woon na ku dee la nga deewee ca lan lay dekkale yowmal qiyaam allahu akbar mbokk yàgg nañ ko wax dinañ ko waxaat képp ku daan dem ci ay jibar moytul jibar yi képp ku daan takk ay gàlla waaye moytul takki gàlla képp ku daan jor ay xar fuufa yu kenn xamul waaye moytul leen jël ñun ñëpp suñu jëmm yi ko borom asamaan ak suuf moom mi nu sàmmoon ca suñ biiru ya te suñ biiru yaay ya nekkoon lu xat lool tàng nga xam ni foofa noona ñu ñëw ba ci suuf si suuf si ni mu yaatoog ni mu leere mbokk jullit yi na ngeen bàyyi sunu bopp ak sunu boroom bés bu ñu génnee àdduna sunu boroom man a man ñoo defal ay xéewal ci biir bàmmeel yal nañu yàlla yërëmal mbokk mi yal nañu yàlla yërëmal yeneen mbokk yi nga xam ni ñoo jiitu ji maa ngi leen di ñaan mbokk jullit yi bii képp ku ko topp ba pare mbokk bii nga xam ne moo génn àdduna situation bii ñun ñëpp na leen ko ñaanal yal na ko